kow grand frère kow grand frère suñ ko jàppee mu xam ne xaasu laamu yoonam nekkul sama ko si dugal barke Baay Sëriñ alxuraan mu ma yaakaar man la Siteu ndaw maay wax ak moom kooku du dërëm nee na paaka ñaari boor suñ ko jàppee mu xam ne mënul bëre da nga koy jaamu yéen ko bés kaw doo ko suuf ma la wax loolu. waay lépp jàmm gaan leen wax pare gën waaj. na jàmbaari pare nañ. dara du xew. liis moo toog ci kaw sareet ci kaw fas bi. mu ngi noonu ci fas bi la toog ñoom la raa jiitu kookoy liis njaago moo war a bëreek Ardo mu ànd ak tarkindaa ñoom Laurent mi ngi doon toog ci kaw fas bi di jëmale open press bi cey waa ji am nañ ko di ko gunge mu ngi noon ci kaw fas bi jël ma lii doomu jàmm gën yaa ngi yëngu direct doomu jàmm gën yaa ngi yongu direct fort ngi nii xanaa déggoo yow liis doomu jàmm gën bi bilaa walaay liis rek la ñuy topp bu xaare ñor na njaago ngi noonu di dugg noonu di dugg mu toog ci kaw fas bi gaa escorté ko cey laam mu noonu di yëkkati loxo bi tey le 22 janvier. am na lu muy naan guux na ko sëlmoo na ko sëlmoo waat na ko. si na lépp tettal la gaa yi téye fas bi face bi laam mu ngi wàcc wax bi mu ngi teetal lu war a def mi ngi koy wis mu ngi wis lu nekk ci leket bi jàmm rek gaal taw féex. léegi sa waaw bis du rëy si ñun. naaj. nga ne jënd combat bu mag combat capital. Ah. la. ah. waaw yàlla noppi na yàlla nañ yàlla suturaal. Ah. waaw. naaj. Ardo Ardo na ko loolu yëpp mbër la rek day jaxas. si kanam si kanam léegi mu leer waaw. champion bi. Laurent jox na ko béjjén bi. ngay saraxe. ko ñuuna ndaanaan xolal ma gaa yaa ngi nii xolal ma état de forme bi Liss Ndiago yor waaw xolal ma sama waaje Gorofil <laughs> Gorofil nuyu naa la jàmbaar yi dem jàmbaar <laughs> ndeysaan jëlal ma loolu waaw waaw waaw waaw eh Louis waaw waaw <laughs> njaago baagoog ba njaago baagoog ngeen no barki sëñ Fallou Mbacké pare ngeen yàlla na yàlla suturaal ak ñu ndam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 sàkkal gin gi neew Podor Silmaxa ak Njëgu lépp rek di waajal combat Liss Ndiago bi dégg nga ma xanaa jàpp rek daan tër rek reen yox la ko ñu naka lu leen doon de jàmm nga leen dëkk suusa bu ne laba taako ko tagal musiba doo falu debbo janan kuttu janan hop fiya dégg nga ma xanaa Liss Ndiago rek la ñuy topp yàlla na yàlla def jàmm may ndam si barke sëñ Fallou loolu ak la ñuy ñaan ba ngeen ñëpp ak man si Liss Ndiago addo waaw ah, loolu moom loolu moom benn jooy rek lañ koy def ñibbi si waat jàmm gan. addo ban addo day xaar ñun ñun ñun Liss dañ am ñun Liss la eh kii xale la su jàppee addo tout seul Liss seul. nee jooy la koy ji. yaay ma kumba. waaw ma yaay ma kumba. ci loolee. dama leen rek sama doom. kontaan kontaan ci yéen rek. Louis loolu ngay wax. xanaa kontaan ci di ñaan yàlla yal na ko yàlla may ndam ndax Liss Ndiago moom ma Kumba ba ni xale yi ndaw lañu woon ko tëggal ma yaayi ma Kumba kon bis bi dama cee kontaan ndax Liss Ndiago xale bu am kóllëre la xale bu baax la ndax soo ànd ak mbër nga di ko tëggal ba nga ne ay tuut tànk ba tey mi bëri en ren yow loolu sant yàlla la ma ko ñaanal yàlla yal ko yàlla may ndam. yal na leen yàlla may ndam loolu ñaan kontaan naa ci yéen jërëjëf waay. wala booy. waa ndeysaan luy sa ngoog. Boucar naa la. am fa ko dugal waa ndeysaan luy sa noonu xoolal ma luy waaw ndeysaan <laughs> ay lamb ndeysaan lamb jaa ngi nii xale bi yaakaar na ci doomu jaamu gëri ci la bokk jàmm gën da ko yéene yàkkamti ko mu ne ma abu tax waalu waruma te doomu njaago bi njaago or bi andi ma ruuma njaagu ma cuuma njaagu ma njaagu buka fuur ma njaagu gine bi saawo ma njaaga kayu ba teer ba njassa jey <laughs> foofu la bokk ay waay waay Luis daa mel ne pare na daa mel ne Luis pare na nee na ma boo ñëwee jënd fii fan la bigi dam bi boo génne ah bu ñu jeexee boo génne nga jënd xol yi dina teel a jeex waa ndeysaan Ibrahima Khalil Djimbe la àndal tey sentir na dooleem nee na leen daan lu bëri kàlla de ndeysaan cey Luis gaa yaa ngi wax ak moom naan jàmm gi ñëpp ngi ca ginnaaw nee naa Louis mbërëm réew la mbërëm dëkk la xale bi xolama xale bi ndaanaan la nag Lewis waaw ndaanaan la waaye jëlee leen ma bagaar bi Ousseyn. Eh, wuli ko njaay ay waay baay faal yee cooli cooli atalay mu jeeni jaago ana baay faali ana baay faali ana baay faali lis lis njaago dafa dof kin ana lis moom warul dof soo dofee moo a ko lis yàgga ba tas rambax ca ca mbax ay waay cam lam lam lam lam lam lam lam mbax re jumbux sagit ay waay fa beere leen ay waay faan fa beere leen ana njaago yi ay waxtaan la affaire ay waxtaan la seetaan jërëjëf mbokki àdduna jërëjëf mbokki Sénégal ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi di gërëm mbokki presse bi fi teew yëpp waaye di gërëm promoteur bi Jax di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax lii mu taxawal yombul diggante Ardo ak Liss Ndiago waaye mbokk yi balaa ñoo def dara dañuy bàyyi liis Ndiago nuyoog mbokk yi nga xam ne ñoo koy seetaan à travers partout dans le monde bu ko defee ñu ñëw ci question yi Liss Ndiago àdduna ngi lay nuyu. waaw ginnaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ak Mariam Selemi waa ñu nuyu ñëpp di nuyu àdduna bu baax di nuyu waa jàmm gan bu baax a baax di nuyu presse bi yëpp xam di nuyu maanaam diaspora bi képp kuy jàppale Liss Ndiago rek ak képp kuy bëgg Liss Ndiago foo mënta nekk rek maa ngi nuyu baax waaw. <coughs> Liss Ndiago euh, état bi ñu gis si yow daan nañ ko gis si yow bi ngay soog a dugg ci làmb tey état bi nga indi tey lan la ku la digal loolu. waaw du dara du liggéey rek man moom xale laa waaw te boo ma xoolee xam man du ma nit bu ndaw waaw maanaam man damay liggéey rek entraîné dañ may teg si yoon. waaw ko si mel ni Thomas top 5 fitness ak ma waa ko quoi ñoom Paate ak Sall mën na woon ñoom ñëpp waaw loolu la mën man damay liggéey xale laa quoi waaw. ki ngay bëreel Arzo ku ko xam xam xale boo xam si ni ni muy bëree ak xeex bi Liss Ndiago est-ce que pour xeex ak Arzo samp bagaar ak moom runkum daje. Hmm. Liss Ndiago est ka que yaa ngi préparé loolu. waaw mën na la yow lamb bu bëre dóor la ñu wax yaa ngi dégg amanta man maanaam lu mu indi benn dafay fekk tribul waxuma la ñaar waxuma la double looy fekk tri triple waaw pare naa pour lépp kuy dem arme lépp nga yóbbaale kuy dem guerre da nga yóbbaale arme yëpp waaw lu mu indi benn maa nga wax fii dina fekk lu ko jaaxal torop Liss Ndiago nuyu na la waaw ñu ngi lay fay bu baax nekk bu dee bëri day mbërum wet moo xamante ni ku dàq si tànk bi wala nga daw jël ko rek da lay busulu àndal maanaam ardo mun naa ko boot di bëri moom yow mii waaw ardo maanaam bu ko joxoon bébé Liss sax du ko daal walla boo ko joxoon bébé liis bi maanaam ara du ko daan quoi. mbooloo mu nekk da indi si làmb dindi loo xamante ni bëre ba sax dafa ñor bis boo leen nee runkum daje ngeen samp jaag. maanaam bëre ardo bu dee keneen ko dul ardo laa la wax bu dee bëre rek bëre bëre bëre bëre bëre mun naa boot keneen ko dul ardo di bëre. doo mën la ardo maanaam après ngeen comprendre maanaam bébé liis mi sax du moromu ardo. noonu la demee kuy naan tàng suukar saa voilà mais Liss Ndiago dañoo gis nga dugg seek loo xam ne si mosoo ko dugg seeg si open press muy fas fas bi luñ la diggal la wala lan la non digal luñ ma ko de maanaam aar la rek culture rek waa xam nga culture la te ñun jàmm nga lañ dëkk maanaam man bu la waxee dëgg rek sareet laa ñu ko dawal sama live man moom laa ñu ko def métier barki alxuraan billaay sama fas ba ma ko joxee yàggul voilà pour wane la làmb ji dama delloo njukkal borom sareet yi ñoom laa ko tuddee kon làmb borom sareet la waaw di tamit di sant képp kuy jàppale Liss Ndiago di sant Pape Gueye bu baax gis nañ li ñu jàppale di sant suñu waa Ikiri Cheikh Daouda Ndour président Ndik Fall Grand Laye maa ngi sant ñoom maa ngi ñëw balaa ngaa ñëw foofu ñëw nañ déglu question yi ñi nga xam ne ñoo am waaw. mbër moo fay daan néew fa mhm. yàlla da mu jël ki xamante may Liss Ndiago mhm. Liss daa dem duggam parce que am fa defet mhm. Liss isa muy sura la mu fa seen bërër mais tamit gis tamit euh, ci combat bi Liss indi souplesse dindi poids bi nga xamante yoroon na ko Liss mbër bi nga xamante moom mbër bu doon fàq la jarki do ko yow bëtt bëri bëri bu rëy mais Liss ñoo gisee combat bi loolu la fa chéri indi gis nga fa bëri bu bëri loolu ak arro ci combat bi nii déggool mu la wax arro maanaam moo leen waxoon ne lan la leen wax nga ne dafa teg ciin waaw après yéen bu combat bi jeexee guddi gi seeti leen ko ngeen dugg gàllam bu leen ko tàggu de ngeen tijji cin bi xool lu mu siy def du am dara. cin lam kon cin lam teg amul dara. amul dara kon moom cin ba teg amul dara. du am dara. am tuuti bu bañ ko jàppee rek cin taam. waaw andi ci làmb waa ngi leen sant bu laa dëgg banlieue zar laa yaa ngi dégg laa dëgg banlieue maanaam jàmm gën laa dëgg banlieue laa déggoo ma leen man seul dama leen di battre ñoom ñëpp voilà yaa ngi dégg yee di nuyu waa jàmm goon bu baax di maanaam di leen woo si combat bi képp kuy bëgg Liss Ndiago foo mënta nekk rek di woo Diagne waaw ñu gis ko ñu ajoon waa te boor du rak waaw comme jeex na ko nekkoon toog diir diiraan boo xamante ni la tey lan ngay wax waa jàmm gi ak ma leen wax moo ñu ñëw. teel a dimanche nañ teel a ñëw. teel a añ ba suur dem stade duy ko ci kaw ba suuf lépp luñ bëgg dinaa leen bëggal dinaa leen defal lépp dinaa jàpp ardo dinaa ko duma comme ni ñu bëggee dinaa ko daan. dinaa ko jàpp dinaa ko duma comme ni ko supporters yi bëggee. ko daan. da ngay duma kan. ardo dinaa ko jàpp. kon na ko bëgg a duma dinaa ko daan. est nga duma ko. waaw après ngeen ko dimanche yàggatul jour bi mooy ñaata yow. Garba Diambé rek ci Liss en tant gis sa open press bu demee nii. lan ngay waaj ci bis bi. ci booy ci non violence. waaw di di sensibiliser képp kuy topp Liss Ndiago rek képp kuy ñëw si làmb ji. di lay wax ne maanaam man maa xeex man mun naa leen xeexal yéen ñëpp xeex bi man ak àdduna ci biir bi. waaw bu kenn xeex bu kenn tooñ bu kenn def dara. ñëw leen sangu ba set yaa ngi dégg waa jënd tigay seer toog seer at ma. dinaa def lépp dinaa leen ko dumal dinaa leen ko daanoo. waaw waaw tekkaaral. maanaam du wax maanaam maanaam lamb yi du lamb wax. lamb jëf la. waaw maanaam dafa jot dafa jot. waaw loolu moom la dafa jot maanaam ñu xam Liss Ndiago ban nit la doon. waaw Liss Ndiago ban champion la doon Liss Ndiago ban mbër la man mbër laa. waaw mbër kaamil laa mbër kaamil. billaahi buñ ma jàppale barki alxuraanu karim ma dugal waa réserve jàmmagoon fii. da ngaa ah. jàppale da ngaa jàppale da ngaa ay jàppale. maanaam waaw ñun amuñu jàppale. mbëru jàmmagoon yëpp maanaam ñun. tey jii maanaam lu nit di wëri feneen rek am na jàmmagoon jàmmagoon ay mbër yu am talent ñoo fi nekk mais amuñu jàppale. waaw ñun mu ñu jàppalee gëm ñu rek barki alxuraanu karim mbër gënuñu maanaam lu lépp mbër mu ngi si ñun nañu jàppale di projet si yow laay waxal. waaw na nga ñëbu seere yi moom laay waxal suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la avant moom suñu mag la woon démba tey doog a ñëw avant moom la gars wax yal min borom dëkk bi yaa ngi dégg may leen ma tuuti may ma tuuti ñun say rakk lañ maanaam boo ñu jàppale dañoo war a jàppale boo ñu jàppale dañoo dañoo war a jàppale ñun ñoo sañ dugg sa néeg ti ci sa valise sol yére bu leen neex jël sa yére nangu sa birig ah. génn ak moom du muñu fenn parce que say rakk lañ combat yi maa nga siy woo si bolog yi gi nga mbooloo bi fi nekk maanaam loolu yëpp yàlla la mhm. tolloon nga fii yaa ngi dégg maanaam dañ laa sas man lu ma la sas bëriwul ñaari bolog laa la sas si combat bi bul dox mais sa diggante balaa nga profito da nga wax si Siteu muy Yalmin borom dëkk bi muy sa mag di sa xarit di sa lépp ndax tamit euh, dañuy toll foo xam si ni foog ñuy wax ci lu baax ci mbër yi sa digganteeg mbër yi nga xam ne ñoom ñoo nekk jàmm gën si kàmbaaw gis nañ ñoom ñëpp def en wuy si la dooleel la est yaa ngi sóoraale ñooñu seen ginnaaw. maanaam yow yaa ngi maanaam yéen a gisal seen bët ñun ñii suñu biir ñun mbëru jàmm gën yi ku si yëngati lekk jox sa morom day lekk. ku si yëngati maanaam dañu doon dem di football ay match maanaam match mbër yeeg mbër ay phase fu ne dem fa ñooy bokku ndékki wokku lépp billaay walaay di sànnante ay yëre kon maanaam la quoi waaw Baye Fall man may. liis yaa ngi may poñe de liis poñe bi nga may poñe lan la xanaa da nga maa jaawale ak Ardo poñe bi nga may poñe lan la liis. li may wax li may wax lu dul dégg liis yaa ngi may rey de. liis yaa ngi may rey de. waaw non li may wax lu dul dégg waaw waaw tamit maa ngi sant ma maa ngi woo Baye Fall yëpp. di waa di nuyu presse bi tamit ama seen fay waaw di nuyu suñu waa bu baax mbëru jaam nga yëpp ñu fi teew ak ñu fi teewul yaa ngi dégg tamit di leen sant bu baax di wax ni combat bi combat borom sereeti di woo maa ngi ñëw maa ngi ñëw di sant suñu waa équipe président yi Ndik Fall Ndik Fall Abdou Diouf père moom Moussa ah Gabar Jibi Ndiaye yaa ngi dégg Grand Laye tamit di sant chauffeur Alo Dakar di sant mafia CFA bi yëpp yaa ngi dégg waa di sant mafia mafia tabe bu ruus bi sant suñu Pape Pape Gueye Pape Gueye suñu papa gis nañ ni ñu taxawoo baax a baax ñu ngi xaar lépp xam nga wax di sant Mame Sey Touba ak Samba Ndour di sant tamit waaw képp kuy jàppale Liss Ndiago maa man lay sant. waaw di wax ni maanaam bébé Liss a ngi ñëw. waaw ko bàyyi xel wax nga. loo yóbbante Ardo Ardo lay seetaan. man Ardo lay seetaan lan ngay yóbbante Ardo. Ardo dinaa ñëw si moom. mais damaa bëgg ngeen wax ak bébé Liss ba pare. bébé Liss. ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu leen di sant bu baax. waxal bu baax sa digganteeg sa digganteeg seen digganteeg yow ak Liss Ndiago lan la. waaw loolu noonu lu yàgg la. yee lu yàgg la Liss la mag la suñu kanam la ñun Liss la ñuy bëggee. kii sama tool la kii noonu la demee nag sant bu baax a baax ñoo na góor a fu ñu Liss ñu dem ngóor billaahi waaw di sant Thierre borom di foncé di sant sama staff yëpp di sant Assane Seye bu baax di sant Mor. di sant di sant fan si club Ada lu mu lay yóbbantal mooy nga toxoñ say bët nga xool. nga xool maanaam Liss ñëw na doo dee gore naa la changer sa profil def si Liss Ndiago. Eh, borom tool borom tool.